tout d'abord yaakaar naa la plupart de ñi fi toog kenn dootu leen présenté kan mooy le président Habib Niang te xam ngeen coono bi muy daj ci waa kër gi te mu doon loo xam ne ni peut-être tey li tax ma gën cee sa war a wax mooy ñi fi nekk mën nañ ma témoigner keroog bi nga xamee ni nii dem naa seeti ko pour mu jàppale étudiants yu Medina Fall Euh, satisfaction laa ci jëlee ndax ku la jëlal kër fii ci dakaar di ko fay toute une année ba léegi mu koy continuer ba léegi loxo mu ngi fiy dugg lépp lu ñuy dundee loxo mu ngi ciy dugg donc euh, tey jii dafa war ci ñun ñu xam ni euh, jàppale bi ñu koy jàppale sunu bopp lañ koy defal ndax li muy def tey jii ci doolay boppam la koy defee doonul lu dul chef départemental te kon lii nga xam ne nii moom lay fayee ko ci salaire am ci la ñuy fayal kër gi bu doon sax ñun dong la koy defal à la rigueur mën nañ comprendre mais da ko defal waa Ziguinchor man ànd ak dem ba Ziguinchor seetu naa mi mu defal ko ko mu defal ko Moustapha mii depuis bambay mu defal ko Paate juuf mii depuis cees mu defal ko Seydina depuis euh, depuis depuis fële Saint-Louis kon day doon nit koo xam ne ni foo tourné ci activité étudiant danga ko ciy gis kon kooku bu la waxee ne am na yërmande ci sunuy waajur dañ koy mën a gëm parce que sa yu gesso ci ay jafé jafé dañ koy gis ba taxna ñu ngi lay sant di la gëreum ci touru étudiant yi nga xamni ni ñom ñepp ñom la yilif ci taxaway bi nga am ci suñu ak yow ndax mën nañu wax ni keneen ko ko defaat ci yow la ko copier ndax bañu sonné sonnee dëgg yow do nga leen gisoon bañu bañu autorité ci yépp dawé yow do nga kon bu ñu keneen ñëwee tey dinu woo aussi du duñ ko mën a wuyu parce que feral nga sunuy rongoñ te taxaw nga ci sunuy bëgg-bëgg soxlawuñu leneen i keneen honnêtement dama koy wax sans gêne mooy kan ni ba mu jafee yow la ñu gis te ba mu mitee yow la ñu gis kon tey ji war na ci ñun ku nekk ci ñun au delà de yow sa carte bi nga yor carte sa wa keur ak say dëkkandoo nga xeex ci jàpp ci bo mom tay ji instance bi mu bëgg Thiès muy zone nord ñu jotali ko ko parce que ci sunu ndariñ la nekk ci lu ñuy jàppale la nekk te yakarna ni képp ko xamni ni mu ngi daw ngir bëgg lu la neex di la jàppale la moindre des choses bi ko mën a defal mooy nga jàppale ko on va faire comme Souane remercier monsieur Habib Niang ici présent ci ci jappalé bi parce que comme Souane l'a si bien dit j'ai été là tout au début euh, condition ni mu méttee woon pour ñu doog am logement bi et depuis le début aussi maa ngi fii lepp j'ai été témoin oculaire présente ici yi fi Habib Niang yow yëpp maa ngi woon ci kër gi et mën naa ne depuis lors li nga xam ne dige woon na ko ñun ak de la sax def na ko mais nag ci yoonam yi mu fiy ñëw yëpp waxoon naa ko fii la dernière fois je le répète dafa am lu ma ci gën a marqué muy que dafa nii maa leen logé

donc je vous le présente voici monsieur Habib comme ni nga yàggee dégg turam ñi xamee ko noonu ñëpp wax dëgg yàlla comme ko waxee dès le début bañ situation il n'a pas hésité ñu carrément ñëw jour un mardi bañ fa on lui a exposé notre problème sentir nañ que on est dans le besoin wax nañ ko ko moom wax nañ ko mu recevoir ñu tok toog ñu waxtaan si loolu noonu yëpp bañ ko ko exploité exposer bañ ko exposer suñu problème si saa wax dëgg yàlla si saa il a pris la décision de nous aider sans hésiter si saa sans hésiter ñu ma àndaloon mën nañu ma témoin woo ay courtier wax dëgg yàlla avant tout lu ma si gën a neexal mooy dama leen jàppale te yàlla tax loolu mo si gëna neex ci baat ci ci waxam ji dañ leen jappalé tay la tax kon nga xamni ni kon yaakar na ni ku baax la parce que mom lañu won wan c'est pas évident que nga am problème fëgg ben buntu tak mu tijjil la tak la ci yoon à chaque instant mu ñu woy dañu ko ba xam li la lu manqué lu matak bu leen hésiter lepp li nga xamanteni yaakar ngeen ni war na ko ci mëna def bu leen hésiter bëggu sa ñu koy wax monsieur le président jeune frère lañu wowe parce que lu tax sa modestie jàppee ñu loolu sa surtout sa modestie parce que dañuy wax ni waxuñu ko sax mais alxuraan na ko wax yàlla moo ne boo wàccee sa bopp rek ma lay yéegal mais boo yéegal sa bopp toujours ma lay wàccee moom yaakaar naa ni kon lu muy jëf alxuraan la toujours day wàcce boppam à chaque fois dañuy naan jeune frère la ma revenir si la fois passée maa ngi ko doon waxaat fii sànq problème yi amul fii passé ñëpp gisoon nañ ni mu tàngee il la peine de nous appeler pour nous mettre dans de bonnes demoon na ba jël ay oto ne maa ngi envoyé oto yi ñu ñëw jël leen ngeen dem Thiès ndax fii waratul donc loolu noonu yëpp yaakaar naa ni ku koy def kon kooku mënoo seetal daraam lu dul ak mbaaxam voilà donc toutes mes amis tous les Thiessois kii lépp li ngeen fi gis man laay ñi toog télé gi chambre yi ngeen fi mënti gis ndox beeg courant yi lépp c'est grâce à lui donc un grand merci à cet homme. Avant tout, je vais remercier monsieur Monseigneur nous avons xam ne moom parce que c'est pas du tout évident parce que nous savons tous que nous surtout boo qu'il y a une ici au Sénégal voilà pour voilà tout ce qu'il est en train de faire pour nous vraiment je vous témoigne beaucoup de respect et d'affection j'ai pas eu la chance voilà de vous connaître nous bi au ñëw def démarche j'étais pas encore à Dakar mais vraiment ils ont eu à me parler de votre modeste personne vraiment nous vous remercions pour tout parce que comme j'ai l'habitude de leur dire c'était pas aussi facile que ça, genre, pour que les étudiants, parfois, pour ce genre de choses, ils courent d'ailleurs les autorités, mais voilà, sans suite. Mais en un, intervalle de temps, nous avions su véritablement avoir tout ces idées, donc nous remercions pour ça. Et vraiment, comme il l'a dit, je ne vais pas revenir sur ce que notre cher président a dit. Vraiment, nous sommes saurons vous remercier assez nous sommes pour messieurs assez. Parce que nous savons tous que, voilà, il y a des filles ici. Peut-être que nous, nous avons eu la chance d'être logées, mais il y en a qui ne le sont pas. Et quand on est une fille et on sort de notre maison matrimoniale, c'est un, peu un peu compliqué, voilà. On est confronté à des problèmes. Parfois, on est dans des maisons où on ne peut pas travailler, on ne peut pas voilà, suivre les cours correctement. Et là, là, ça leur permettra véritablement de suivre les cours, de faire les exercices et tout. Et j'aimerais lancer un message à tous les soirs, voilà, parce que c'est pas par jalousie, mais l'année passée, le, le, major de notre école était en Saint-Lusien. Donc pour cette année, je voudrais que cela soit un soir parce que ça ne sert absolument à rien qu'il fasse tout ceci pour nous et que l'on ne travaille pas, et que l'on reste là, et qu'on est irresponsable, Voilà, et qu'on reste là, et qu'on est... <laughs> Merci. Et qu'on est irresponsable, on ne travaille pas. Il nous a mis dans de bonnes conditions pour que l'on travaille. Donc ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous savez tous que les autres amicales, ils n'ont pas ce que nous avons aujourd'hui. Et nous sommes les derniers années. Donc pour ne pas tirer en langue, je vous remercie. C'était ce que je voulais partager avec vous. Bonsoir, Monsieur le Président. Je pense que nous devons nous présenter au Sakaram. Parce que nous sommes tous... naa xamante nañ ba ak madame Sibi le 9 recevoir le 9 février nous recevoir il a mis plus de cinq courtiers sur le terrain cinq courtiers nga xam ne kii pare na pour jàppale ñu chaque jour daf ñu doon woo fu affaire yi nekk fu affaire yi toll booy ut leen ñoo xamante ni ut leen appart boo xam ne dafay jege seen campus social bi ñu utee appart boo xam appart bi ba pare mu fay appart bi nañu dama leen koy équipeel mënoon na yem foofu mu ni dama leen koy équipeel matelas yi nii nii nii li nga koy gis ça vaut cher matelas dañ demoon ba naan ko non na def matelas yu yemamaay rek comme ni ko SG waxee sànq def nañ ko nañ def matelas yama mais dani non non ay étudiants tiers wangen sama samay étudiants ngeen vous êtes mes frères à chaque fois mon frère les utilise suñu diggante ak mom danaan yéen vous êtes mes frères da ma wo mu duma duma nangu ben étudiant Thiès waa di tëdd ci benn matelas bu noy wala mu nek ci yenn conditions yi parce que day mel ni man man man man maa nekk ci condition boobu parce que mom danaan la il a j'étais j'étais étudiant loolu lay wax naan étudiant Thiès waa yi bëgguma gis kenn koo xam dafay souffrir moo tax bu à fois loolu la ñuy loolu la ñuy fàttali kon nag am na yoo xamante ni waxante woon nañ ko te gis nañ ni mi ngi am li olof di wax rek ku la dig ndékki dig la ku la defar ku la jox ndékki jox la añ bu la joxee bu la joxee reer jënd jël cure dent xam ne di nga reer. ma décidé woon tey ñëw euh, rendre visite euh, sama étudiants yi xam ne yu nekk bi dakaar bi may ñëw nag maa ngi àndaale le président de l'amicale des étudiants bu bu Ziguinchor àndaale bu Bambey. àndaale bu cees ak étudiants yi xam ne ma ñoo nekk Médina Fall nekk fi Alicate euh, aujourd'hui moo nekkoon tey pour de ñëw d'abord euh, sàmmante ak ñoom waxtaan ak ñoom conscientiser leen lii nga xam ne maanaam moo fi jot a xam mais sant nañu yàlla bu affaire bi amee ba léegi man sama bopp dama doon jël sama téléphone di jokko ak président yi di leen informer bu situation bi xawee kenn ñu ñëpp nañu ñibbi cees et puis aussi lu chance bi ñu am mooy étudiants yi déglu nañ ma euh, jox nañ ma cër jox nañ ma Euh, tey dama ñëw nag surtout aussi tamit pour xool si yan condition ñoom ni ñu dëkkuwaay seen ni ñu dëkkee euh, parce que comme la ko xamee jël nañu fi ay ay logements yoo xam ne pour jàppale accompagner suñu ay rak suñu ay jeunes frères suñu ay sœurs qui la là ñëpp xam nañu dakaar dafa metti euh, jànge Dakar yombul tey étudiants yi ñoom ñëpp seen bopp tey kontaan nañu tey si sama visite bi ma def tey si dimanche bi tey après midi ñëw ni macha allah teeru nañ ma waxtaan ak ñoom déggal nañ ma li ma leen di ñaan mooy nañu gën a dolli góorgóorlu jàng. xam na que Thiès soxla na leen Thiès mu leen di xaar tey loolu moo nekkoon tey taxawaay bi tamit mu ñu tey moom indi woon tey. waaw yaakaar naa ne étudiants yi ñoom seen bopp xam nañu ay intellectuels nañu réfléchir nañu xam nga ku ko génne yombul euh, yaakaar naa ne ñoom ñëpp conscientiser nañu xam nañu lii nga xam ne maanaam moom la Habib Niang di def au niveau de la au niveau de la région de Thiès même à travers de Thiès euh, déggal nañ ma li mu leen wax mooy man politique gu ma ngir parce que par intéret li may def mooy parce que Thiès laa dëkk foofu laa xam lenn ñoruma rek pour jàppale sama rakk yi di accompagner suñu président Macky Sall pour que au moins Thiès émerger doxalin bi nekkoon bi Thiès mu changer yaakaar naa si loolu tamit gis ngeen wax ko euh, te émeuti am gisuloon ti benn Thiès benn kas amul lenn lu xam ne tey Thiès toj nañ ko mu doon banque mu doon école mu doon dara loolu sant yàlla la lu waral loolu mooy lan ñun jóoni si benn partition boo xam yàlla rek moo xam fu affaire bi toll donc loolu la ko